aminatu du doon ndeyam mbaa bu ami doonee ndeyam seexul xaddim du waajuram te it du am ngor gi nga am ji jagle yow rekk a ko am aminatoo jur Mustapha amintaloo jur mi tafa kon mee tafa may mi tafa li tax mu sangaay kemam madina geeg taayif kële Touba gileeg Taïf gilee meetar yi ñoo ko tollale kum neex nga dem na ba xam taar ba newoon ca mustafa moo nekk it ci mii tafa wér ga newoon ca Moustapha gis nañ ko it ci mii itam Cheikh Moustapha mosu la war jalum la wax loola la nar moom lun la dig faye ko bar kenn mosu koo gis mu bangam bu dee ci taar moo raw taarixu bayti de moom ci gàttal sëñ Taaru Asan Njaay moo sañcoon bayti sëñ Taaru Asan Njaay nag ba sëñ Tuubaa uh, goree dëkk bi ba bay fii ba mu seet wecc sëñ Taaru Asan Njaay la woo ba mu ñëw mu ne ko takkal ma am néeg mu daal di koy takkaloo néeg bi ba mu ko takkal ku néeg ba mu noppi mu daal di koy euh, làkkloo kër gi làkkum ngeer ba mu làkkee làkkum ngeer ba noppi mu ne ko dugal ma ci biir defal ma ci xalwatu ba sëñ Daaru def na ci xalwatu weer bu topp wax nañ ne fukki fan la waaye weer wi daal topp na daal yàlla dogal nag mu nekk ci bi mu génnee nag sëñ Tuubaa cee dugal boppam ba def fi juróomi at juróom-ñaari at sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa def na juróom-ñaari at ci néeg bi waaw néeg bi def na juróom-ñaari at yàlla dogal nag jàkk ji xëy na moom ngeen romb moo doon jàkkaam jum daan jullee daan fi def waxtu juróom yëpp fi la ko daan jullee ba bi demee ba ba toll ci juróom-ñaari at koor gi mu fi mujj woor loolu def lixtikaaf ci jàkka jooju jàkka jooju nag fi la ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofu la ko fekk. mi ngi fekkee nag sëriñ bi moom itteem yëpp bëgg a bokk ci àndandoo yi ànd ak yontu bi salaahu xamal ko ne ko mboolem ñi ma feeñu ñëpp day bëgg nañu ko ba ku ma ci feeñu ko ne rek dangay bëgg ànd ànd ci mbooloo mi waaye nag lay tax nga ànd ci mbooloo mi day lu jafe lay doon loo xëy nii saay yi buñ la ko wanee doo ci dugg ba ba kenn daal ko yenoo kon daal ba yóbbu ko amagut. waaw sëñ bi ne ko nag man day ànd ci rek laa bëgg ba mu ko bëggoon bëgguñu ko takkal sax garaatu xut bu samaan waaye sëñ bi xamal ko ne ko moom bokk ci àndandoo yi rek la bëgg moom mooy itteem yontu bi doo ko wax nag li ko koy may ak li ko koy xaañ bi mu eggalee sëñ bi ne ko nag man sekkuma sama ruug yi ba xam lu mu attan waaye lu sama ruug yi attan sans dana ko dégg loolu nag ba mu ko waxantee yontu ba noppi nag. yontu bi nag ne nag léegi li nga jaayantoon am nga ko may nañ la ko waaye bi ñu ko mayee nag dëkki bi moom da nga koy génn dang nga koy génn. ndax bi sëriñ bi génn dëkk fii la jógee. waaw la jógee waaw fii la jógee fii la jógee dem Mbacke Bari Mbacke Bari ba ko sañcee yontu bi moo na ko dañoo aar dëkk bi aw ay du la fekk noonu yi noonu yi war a jëfandiku ci yow it duñ la fi fekk kon nag da ngay génn dëkk bi loolu moo waral mu dikk Mbacke mu dem Mbacke ba dafa juróom benn juróom maanaam yenti weer la fa def sawal sul xiidati sol ijjati mu aram yenti weer yooyu la fa am ba mu dugg ci weeru safar wi rek ci la jàpp fukki fan ak juróom ñett war a dem ci ci tubaab bi fekk booba yónni na maam Thierno ba mu demee Ndar borom Ndar xamal ko yebal naa soldat yoo koy jàppi ndax dañ ko woo ay yoon yoon kut maam Thierno xamal ko ne ko benn bataaxal bu ko mën a woo mës a woo wala kenn koo mos a woo daal eh, ak siwul foofu ci moom mu ne ko nag jàpp na su yéen borom dara xamal ko ne ko jàpp na ne yow fa nga moom fa moom nga jóge waaw ci moom nga jóge maam maam Thierno daal fa jóge dikk bi dikkee Louga nag la ba pare aw fas nag sëñ Mor ñaan bu nguñuure ñaan moo ko jox fasu yefal yefal bi yetti at ne ko ne fas yi du tërë du tërë du tërëf mu war fasul daal di Mbàkke Bari ba mu demee Mbàkke Bari dajanteeg bët di set fekk sëñ bi julli ba fajar ba ba ba julli si fajar fa bagage am yëpp teg ko ci buntu baga ci ci buntu jàkka ji bi sëñ bi dikkee ji dana wax ne maam Thierno ñu ne ñëwagut mu daal dugg ci jàkka ji bi mu sëlmalee nag génn fekk maam Thierno taxaw mu ne ko ñëw nga mu ne ñëw naa léegi mu ne ko nag damay liggéey rek sans njaboot gi laa bëgg dénk muy muy sëñ Fallou sëñ Mourou Moustapha ak sëñ Fallou booba ñoom ñaar rek ñoo fi nekk ci ay doom yu góor waaw. yàlla dogal nag maanaam mu daal di euh, ma maam Thierno du ko bëgg a nettali yoonam mu ne ko biig ba nga taxawee ci Louga ca xorondoo mi doon dox ci say tànk boobu maa ngi janoog ñoom daanaka nag jëru maa wax dara jëru maa wax ndax bi nga taxawee ci Louga xorondoo mi doon dox sey tànk boobu maa ngi jàkkaarloog ñoom daal nag sama njaboot gi laa la bëgg a dénk daal foofu loxo mi teg ko ci bopp sëñ mu Moustapha ne ko dénk naa la yàlla ak yonent bi teg dénk naa la sëñ sa Baye Thierno wax loolu sëñ Fallou daal di war ci façon nag biñ doxee tuuti mu woowaat leen waxaat ak ñoom yeneen kàddu yoo xëy nii ñoom la ko waxal. yàlla def na mu daal fay mu daal fay mu daal di dugg daal di dugg ca fekk maam Abdoulou moo ko jël si ndax loolu it siiw na ndax sëñ Fallou wax na ko sëñ Fallou nee na maam Abdoulou rek moo ànd ak ab benn soldaar ñu jóge jeewal di ko jël si sëñ euh, sëñ jël si euh, sëñ waaw ñoom ñaar ñett ñetti fas rek ñoom booba jeewal la ñu nekk di ko fa xaar yàlla dem nag maam Abdou Lo ànd ak benn soldaar ñëw jeewal ñëw ñëw Mbàkke Bari jël si sëñ bi waaw bo sëñ bi nag daa fa jógee dem gaaw la fa jógee daa dem jeewal daa dem jeewal ba fa demee amee ba mu fa yendoo fanaan fa bët seet di dimanche li fa jógee daal wuti wuti wuti wuti Louga Ndar bam demee ba Louga nag foofa la ba saxaar ngoon moo ko fa jëlee yóbbu yóbbu ko ndar ndar am na fa juróom mu am fa maanaam ah, weer ak fukki fan moom la am ndar ñu jël ko fi Ndakaar mu dem Ndakaaru dem Ndakaaru ñetti al alxames la fa jógee la fa dem alxames ajuma gaaw ñu dugal ko ci bato jëmee ko ah, Conakry waaw foofu loolu mooy mooy tukki bi. léegi nag bagage bi nag bàyyi fi def bagage am bii nag yàlla dogal na sëñ Mutum Suba moo ko doon saytu waaw Dóoru Ndiaye ñi xëy ni ñoom ñooy ñooy sosoon barab bi. ci sëñ Abdou Fall mba mbaatu sëñ Daaru Asan taawu sëñ kii kii taawam mooy sëñ Abdou Fati Mbaalo sëñ Fallou Ndiaye moo ca topp sëñ Mbaye Fallou moo ca topp ak ku sëñ sëñ Abdou Khadir Ndiaye waaw ak sëñ Moudou Ndiaye Assane sëñ Mbaye Fallou sëñ sëñ Ousmane Ndiaye sëñ Moudou Ndiaye Assane sëñ Abdou Rahman ak sëñ Abdou Sakh moom ko defee nag sëñ Abdou Sakh nag ci la doomi sëñ Daaru yi euh, yem ci ay doomam. sëñ Mbacke Awa Ndiaye moom moo moo moo wuutu yor barab bi bi mu demee sëñ Cheikh Fatou Seye Ndiaye moo yor barab bi ànd ko ay njabootam bi mu demee sëñ Mbacke Fatou Seye moo yor barab bi bi mu demee sëñ Abdou Khadir Ndiaye mi xëy nii moom sëñ Ousmane Ndiaye mii moo moo ko jur sëñ Ousmane Ndiaye mii moo ko jur moom laa àndal bokk nekk ci daara ji moom mii moo yor moo yor mooy mooy xalifa Daaru Ndiaye waaw ci ndigalam lañ ñu fi nekkee. bagage bi nag li fi indi bagage sëñ Touba bi lépp mooy bagage sëñ Touba la. waaw yi mu yor ci géej gi waaw moom la fi bàyyi bagage yi nag maanaam ay ay téere rek la def ak i ay téere ak am na ay ay benn xali xali ay maanaam ay ay daa ak waaye du amul ay yére amul kii waaye ay ay ay téere rek moom daana mooy alal sëñ Touba moom moo nekk ci biir barab bi lu man fanweeri gaal daal lu war a mat fanweeri gaal ak mi ngi fi. fanweer gàll yaar mi ngi ci biir néeg bi waaye yëpp ay téere la def sëñ Moudou Moustapha daana wax ne bis bii bis na boo xëy ne képp ku yàlla may nga teew fi fanaan fi boo xëyee da nga mel na nga juddoo woon ci bàkkaar dell na wax ne barab bi ku ko siyaare ku ko siyaare euh, ku dugg ci kër gi kenn fi duggaal ak bàkkaar ci kër gi waaw ko ànd ak sell daal soo fi duggee mën ngaa rafet njortuñu ne jéggal nañ say bàkkaar ndax sëñ Touba moo wax ne waxli li awaay yële si nadaamoo bi xidmatin wa ablu maraamoo daa wax sunu borom ne ko ku nu ku siyaare nañ ko jégal bàkkaaram te faj aajoom moom sëñ Tuubaa moo ko wax waxli li awaay yële waaw barab mata siyaare la ndax sëñ Tuubaa bi ba mu ne diir bi fi bi mu fi jógee bi mu fi jógee nag ba demee ca tukki ba benn la fi ñëwaatee deeru ma naan la sanc bi mu sancee deeru naan juróom benn weer la fa am tubaab yi duural ko ne day daaj lay gànnaay euh, am na ci foofu it mën na sa fa bañ a àgg ndax moom xam nañ ko xamati ko xamati ko waaw ñu duural ko jëlee ko fi yóbbu gànnaar ba mu jógee gànnaar ñu jëlee ko fa yóbbu jolof gànnaar juróomi at la fa am jolof yanti at ñu jóg faa jëlee yóbbu njaareem njaareem fukki at juróom la fa am daal di ñibbi si Tuubaa ci bis bii. waaw bis bii xëy na ci la ñibbisi si wax nañ ne bis bi la boo xëy nii muy euh, isri na ma aram muy fukki fan ak juróom-ñeent di ñaar fi guddi mooy bis bi xëy ni sëñ Moudou Moustapha daa wax ne ku fanaan fii mel na nga ne juddoo woon ci bàkkaar waaw waaw daxaar gii ngi daa daxaar gi mi ngi fi moom teel bi yi jébbuloon ci moom bi sëñ Touba ñibbisee njaareem jóge njaareem ñëw fii bu ñoom la àndal ba. ba ci bërëb bi daqaar gi lañu wax ne foofu lañu dëkk loolu tax daqaar gi ñu di ko ormal bañ koo dagg. mooy li ay jinne. waaw waaw waaw jinne ay jinne jinne yi nag dañ koy laaj waxtu ne naan foo ñu nekk noonu nag fii leen mujj a gisee fii leen mujj a déggee loola lan ci mën a wax fi fi leen mujj a dégg daal garab yàlla la ñuy mujj a dégg waaye ñun gisuñu leen ah, waaw gisuñu la cëgudul ba woo fi nekk nag waaye ñun gisuñu leen xëy na ñoom nag ñu ngi gis waaw waaye ñoom nag ñu ngi ñuy gis barab bi laa boo xëy daal màggal gi daal képp koo xam ne yàlla mën na la ko daana ca bu njëkk daañu wax daal boo yoree benn bu bu képp jar na nga jaay ko paase ko ñëw ci màggal gi waaw màggal gu mujj gi nag mooy màggal gi xëy ni ci la Sëñ Tuubaa waxee ne ku màggal bisub tukkee ba ji nga añ nga am nga am nga yool ba mooy màggal gu mujj gi waaye màggal gi te Modou Moustapha moom moo koy defal wajuram ànd ko njobootu Sëñ tubaa yëpp kon nag ñoo ngi sant yàlla di sant yonentu bi di ñaanal sañ Muntaxa mu yàgg fi lool ak sañ ak sëñ Amadou Muxtaar ak njabootu Daaru Xuddoos ak sëñ Abdou Xaadir Ndiaye ak njabootu sëñ Daaru Asan Ndiaye noo ngi sant yàlla baax a baax a baax ñaan suñu borom defal ñu tawféex képp ku fi dikk suñu borom jéggale say bàkkaar ci barke sëñ Touba wasalaamaaleykum waaw waaw. jërëjëf Ndiaye. taar ca Moustapha. moo nekk it ci mii tafaa wér gu newoon ca Moustapha gis nañ ko it ci mii itam Cheikh Moustapha mosula war telum la wax loola la nar moom lun la dig faye ko bar kenn mosu koo gis mu bangam